asalaamaaleykum wa rahmatullah sunu mbokku téer yi mu ngi leen di nuyu di leen jaar président Malick Fall Grand Thiès di nuyu le président Mamadou Seck mi nga xam ni moom moo jiite mboolem téer mu nekk ci Thiès di ko nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam di nuyu tamit mboolem association yi nga xam ni ñoo nekk ci Thiès yépp donc mooy président yi nga xam ne ñoom ñoo jiite marché yi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp waaw di def rek benn appel di woote ci suñu journée bi nga xam ne moom la marché Grand Thiès di waajal muy conférence religieuse bi nga xamante ne Tafsir Abdourahman Gaye moo ñu koy defal di ci woo mbooleem nag mbooleem téyeer bu nekk Thiès ñëpp bàyyiwuñu kenn tous les marchés ñu ngi woo ñëpp. xëy na nag mën nañu lim ci ci waaye dañuy bañ a matal waaye mbooleem rek koo xam ni téer nga nekk Thiès fii président Malick Fall mi ngi lay woo ci journée bi nga xam ne moom lañu am muy conférence religieuse bi nga xam ni tafsir Abdourahmane Gaye moo ñu koy defal xam naa rek bu ñu woowee le président Mamadou Seck mi nga xam ne moom moo jiite téer yëpp xam naa dina yóbbaale ñi des ñëpp mbooleem rek kuy nas puso rek président Malick Fall woo na la ci journée bi xam naa nag journée bi aussi am nañu parrain bi nga xam ne moom lañ ko jagleel muy Assane Niang mi nga xam ne mi ngi dëkk di doomu Grand Thiès moom lañ ko cërale di wax nag incha allah ah ñu ngi xaar ñëpp ci bis bi di woo ñëpp daal bàyyiwuñu kenn daal ñëpp ñu ngi lay woo xam naa rek buñ ci sitee le président Abdoulaye Ngom le président sortant mi nga xam ne dina mën a yóbbaale ñi si des ñëpp ak le président Mamadou Seck ñu ngi nuy ñëpp di ziar ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullah taala